maanaam ñu gëjoon la gis. ba lii tey ñu woote nga teewaay waaw dama voyagé woon nag quoi ak tamit nu lamb bu xawee taxaw nii xaw a sooxe tuuti ñu xam ni temps bi xaarul kenn quoi nañu génn après xam nga te su ay suñu famille lañ affaire yooyu quoi kon ñoo mën a xaar bu affaire yi leeraatee ñu ñëwaat incha allah rabbi waaye ñoo ngi nii ñëwaat nañ fi mu toll nii bëgg lamb dekkiwaat carrément daal fi mu toll nii tol waaw mais a waaw nga ko ba léegi moo ngi fii. comme na ko daa ndax fi mu toll nii ba ñu demee tamit chaque instant ñu ngi ci sport bi di jàng yeneen sport yoo xamante ni sax bokku la comme sport yi fi toll nii boo ñu xoolee xam ni carrément fi tooguñu woon. da ngaa yàgg a wax ne nag. kenn waxatul loolu jànk ci làmb ba léegi nii. kon ñoo ngi waaj incha allahu rabbi di ñaan yàlla fi mu toll nii yow euh, nguur gi jàppale gaa yi ndax tamit bu dul ñun sax ñun ñun dañoo bëgg làmb waaye teewul bu dul ñun am nañ suñu yeneen rakk yoo xamante ni ñu ngi suñu ginnaaw bëgg làmb loolu fonk comme ni ñu ko fonkee woon kon bëgg nañ nguur gi jàppale ñu taxaw ñu taxaw ñu suñu rakk yi nga xamante ni carrément chaque jour dañu bëgg moonin pour mën a a jàppale seen yaay te làmb am te làmb lu garaaw dina lu leer la lay tegal nii lu bu sooxee lu garaaw dina am ndax man ni fi ma tolloon ci làmb ak bëgg yi ma ko bëggee woon ba lii ba nii may wax yow ni sax am na samay rakk yoo xamante noonu lañ mel te dañu entraînement guddi di entraînement bëccëg ñooñu ma lay wax ni bu fekkee ni carrément wàcc nañ ci terrain bi lu leer laa lay tegal nii 100 day gën a bloqué wu day gën a fees non lu leer laa lay tegal nii day gën a fees day gën a bloqué wu kon nañ jàppale askan bi jàppale booy ndaw ndawaan yi booy ñëw def seen preuve xaw a yéeg sax fi mu toll ndax dañuy jàppale seen yaay loolu lañ am koo xamante ni jànguloo dafoo dara bàyyi sa métier toog ndax làmb kon nañ leen jàppale gars yi mën a def da effort quoi allah message boobu laa doon laaj incha allah dégg naa leen dégguma waaw pare naa fi mu toll nii ñu ngi may woo di ma wax waxoon nañu maag euh, maag kii Zarko waaye taxul woon taxawul affaire yooyu maa ngi xaar nag fi mu toll nii da xaar yeen combat fi mu toll fi bu taxaw incha allah waaye soxla ma booy nag ponkal laa sol ak mag ñi waaw ah. incha